jëm si wàllu actualité mu nekk numéro bu bees bi nga xamante ne ñu ngi koy doora ni si suñu plateforme de digitale DKR 221 face à l'actu dalalaat tey ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sarr euh, nekk chroniqueur nekk tamit acteur politique moom la ñu fas yéene àndal euh, ci bile waxtaan ci ponk yi nga xamante ne nag moom la ñu fas yéene aborder tey ci bile plateau euh, dina nekk sur le lancement du projet Sénégal 2050 Euh, tey gis nañu le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye yëkkati ay kàddu euh, wax sur les quatre as les quatre axes stratégiques euh, du projet waaye tamit dinañu wax sur la sortie bi nga xamante ne l'ancien président de la république Macky Sall jot na ko def di wax sur la situation du pays waaye tamit di critiquer Euh, la gestion du tandem Diomaye euh, Sonko dina nekk ci ponk yi nga xamante ne moom la ñu fas yéene waxtaan ak yéen euh, ci biir jotaay Barthélemy Diaz am na ay kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko nee na moom ba boy town la am na ay yenn erreur yoo xamante ne du ko defaat ñu dëgmal les élections législatives waaye tamit dinañu wax sur la nouvelle sorti bi nga xamante ne Bougane Gueye Dany def na ko di critiquer projet bi nga xamante ne ñi ngi ko doon présenté si suba laataa ñuy jàll ci biir waxtaan. damay jox kàddu bi Ousmane Sarr Ousmane am mbégte ak contentement di la dalalaat sa kër DKR 221. Euh, waaw euh, salaamaaleykum donc Mamour maa ngi lay delloo nuyoo bi donc di nuyu suñu technicien bi. Mhm. Euh, di nuyu aussi sénégale yi nga xamante ne nii actuellement ñu ngi jàkkaarloog ñun donc di ñu seetaan fépp ñu mën a nekk si àdduna bi rek donc ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay ñoom ñëpp donc di wax rek ne. Euh, voilà ñëw nañ pour fas yéene waxtaane li nga xam ne mooy actualité donc mm-hmm. aussi lépp loo xamante ni nii donc lu si jubla rek ñu xam ne borom bi la lu si dëng ñu xam ne si ñun la donc ni ñaan yàlla rek waxtaan bi amal njëriñ askan bi nga xam ne ñoom ñoo toog di ñu seetaan jërëjëf euh, Ousmane Sarr euh, mbégte la ñuy am saa su ne di la dalal euh, mhm. ci biile plateau waaye tamit xam naa ne war nga ñu boole ak ki nga xamante ne mu ngi lay ñawal tamit. non Babacar bàyyi tooñ nag <laughs> waaw man moom moom ah. vraiment donc Babacar dafa am ay nit yoo xam ne ay nit yu baax nag donc mhm. am sama benn waaye bu ñu naan Kéba Kéba mu bàyyi mhm. donc wax dëgg yàlla yëre bu ma am rek dama koy ñawal te moom donc du nangu ma fay ko benn dërëm. foog ñu dem wax dëgg yàlla suma xarit bu baax a baax dinaa la booleeg moom bu jàppee mu lay jàppale euh, parce que moom yàlla may na ko macha allah. incha allah incha allah jërëjëf Ousmane Sarr ñu fas mm. yéene dugg ci bi la waxtaan. Mm. Euh, comme ni ma ko waxee woon si samay euh, njëgteel kàddu Sénégal mm. deux mille cinquante. ñu gis tamit le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye mm-hmm. wax sur les quatre axes stratégiques du projet. Mm-hmm. mu nekk Sénégal deux cinquante. wax na d' sur la gouvernance et de l' Euh, panafricain mhm. bi mu fa jugee wax na tamit sur l'aménagement et développement durable du territoire si ñetteel ponk bi euh, mi ngi doon wax sur le capital humain et euh, justice sociale wax tamit sur l'économie com euh, compétitive et création euh, d'emploi donc mu nekk quatre axes yi nga xamante ne mhm. euh, moom la jot def des orientations alors mhm. tey si suba tamit gis nañu premier ministre mu yëkkati ay kàddu xam naa loolu dina nekk ci beneen mhm. pàcc bi mais d'abord yow bi nga xëyee seetaan mbir bi nu mu demee ban jàngat ngay def ci wàllu boobu waaw donc jàngat bi ñu am mooy di ko di ko rafetlu donc parce que tamit donc yàgg na Euh, ñu wax sénégalais yi ne leen donc am nañu programme programme boo xam ne benn projet la boo xam ne bu ñu ñëwee si la ñu fas ne liggéey Sénégal donc foofu aussi di wax nit ñi ne leen Euh, chaque candidat boo xam ne da ngay dem si ay élection muy présidentielle donc di nga am sa programme boo xamante ni ak noo ko mën a tuddee boobu ngay fas ne jox askan bi waxal ne leen ah bu ma dikkee kat wàllu mbay wàllum napp wàllum sàmm wàllu leneen ak leneen éduca éducation santé dinaa si def lii ak lii mm. donc loolu programme la boo ko def projet bi nga xamante ni nii boo dikkee ba toog nag donc si euh, nga koy donc door a bind tëral ko pour yow ni nga fas yéene doxee en tant président de la république doon toog naan non projet amul gars yi dañuy wax amuñu projet donc ñu gis ay nit yoo xamante ni nii sax dañuy nekk ci réseaux sociaux yi parce que euh, am na benn passe boo xamante ni nii je pense que boo digloo li premier ministre wax donc di nga ci di nga ci xaw njortuwaale ne mi ngi leen di tontuwaale. donc am na euh, une différence ak bien sûr parce que xam nga donc dafa yomb nga làqatu sa ginnaaw ordinateur ku mel ni Passe Anita TV moo tax may wax donc làqatu sa ginnaaw ordinateur soo ngoon di fen di wax loo xamante ni dara du si dëgg donc di di tuumaal ay ay ay gor donc di jaxase xelu sénégalais yi di leen wax ne leen donc parce que yow mënoo comprendre depuis ay années ñu naan noo projet amul projet amul projet amul ba gars yi yow jël réew mi ñu naan leen projet bi dina génn septembre dina génn octobre ñu naan noo amuñu projet ba tey ñu ñëw léegi li ñu wax mooy dëgg la am nañu projet mais projet bi dañ leen koo jaay maanaam dañ koo bind jox leen ko te man ma xam ay nit yoo xamante ne nii donc am naa su ko ma xam koo xam ne ñun ñoo ñoo dëkk mu bokk si ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo liggéey projet bi nga xam ne moom mi liggéeyee fi nga xam moom ministère de l'économie si direction bi nga xam moom mooy lépp luy wàllu fa planification donc moom foofu lay liggéeyee ñu ñooñu di tëju donc di ay guddi ak bëccëg donc di dem fu nekk ci Afrique pour lan pour bind projet bi xool concentré wu ci li nga xam nan la ñuy fexee pour Sénégal jëm sa kanam donc nit ñooñu taxaw naan voilà dañ leen ko jaay te tey même bu fekkoon ne donc Victor euh, Victor Ndiaye boobu wax noonu ne moom moo jox gars yi projet mais Victor Ndiaye c'est un Sénégalais donc xam nga moo bonoon mooy ñu ne euh, projet ne moom la gars yi yor dañoo dem jëlee ay tubaab ñu ñëw ñu bindal leen ko comme li nga xam ne moom moo xewoon ci PSE parce que PSE ku nekk xam na ne Macky dafa dem jëli ay tubaab ay français ñu ñëw fii ñu fay leen cinq milliards décharger suñu xaalis ñu bindal ñu benn benn benn projet muy plan Sénégal émergent boo xamante nii voilà li yàlla xam doy na. Victor Diagne bi nga tudd nii. Mhm. gis nañ ne que ñu bëri ñu ngi doon wax ne que dafa am lu mu jot a liggéey. ak mhm. l'ancien régime. Mhm. Euh, tey jii euh, ñu site waat turam ci bile mbir. ñu bëri tamit di posé wu la question. naan est-ce que réellement le projet PASTEF mi ngi existé. waaw xam nga xam nga moom laa lay doon wax sànq ma ne la gis nga Victor Ndiaye. écono économiste la. d'accord koo xamante ni nii xam-xamam dafa màcc si wàllu boobu noonu. Mhm. mooy naka la ñuy fexe naka la ñuy tëralee ay projet pour développement si xam-xamam si loolu la màcc comme Souleymane jàlloo d'accord donc kooku nag bu fekkee xam-xamam dafa màcc ci loolu mu dem jàngi ko am si xam-xam bu dul jeex kooku deful politique ajuwul si régime bi wala régime bële parce que tey ni ko ni mu doon liggéeyee ak Macky Sall. doon ko liggéey ak Abdoulaye Wade noonu la war a liggéey ak état bu Sénégal parce que sénégalais la comme comme beaucoup d'autres sénégalais. yoo xamante ni seen xam-xam dafa wàcc ci wàll boobu noonu. tey jii bu fekkee am na benn état bu ñëw soxla leen ci seen xam-xam parce que woowuñu leen. donc di di pour leneen mais dañ leen woo parce que xam-xam bi ñu am. bu doon loolu am na ñeneen merci beaucoup amuñu benn engagement politique. d'accord parce que am na yeneen sénégalais yu nekk Sénégal malgré si dëkk bi lañ bokk mais kenn woowu leen di leen laaj ci wàllu projet bi parce que moom xam-xamam dafa màcc si côté boobu li ñu koy woowee du politique mais xam-xam moo tax ñu woo ko. Hmm. kon nit ñi bu ñu bëggee taxaw naan non moom moo leen jaay projet beeg dañu jën te tey dégg nga ko li wax donc amul benn dërëm boo xamante ni jox nañ ko ko dafa ñëw indi xam ànd ak économistes yi nga xam ne ñu fii si dëkk bi ñi nga xamante ni nii donc ay planificateurs lañ mu liggéey ak ñoom ñu tëral benn projet boo xam ne cent pour cent sénégalais la ñu teg ko pour Sénégal donc d'abord nag vision ñu def vision deux mille cinquante xam nga euh, man donc dama bëgg. njiit euh, boo xam ne donc dafay dafay dafay xool xoolin bu sori. parce que tey jii le fait que ñu ne vision deux mille cinquante du rek ne sénégalais yi léegi vision deux mille cinquante la wax kon da di toog ba ngeen muñ di ngeen souffrir mais deux mille cinquante Sénégal dina baax déedéet. parce que boo xoolee ñu ne vision deux mille cinquante mooy fi nga xamante ni foofu la bëgg yóbbu dëgg-dëgg Sénégal. Mhm. mais si diggante bi donc dinañu liggéey def le tout pour sénégalais gis si li nga xam mooy si Sénégal. mais mais vingt neuf li li ñu soxla ci projet bi mooy dix huit mille milliards yoo xam ne dinañ ko soxla yu teg ay millions moom la ñu soxla pour financer ko fii ak deux mille vingt neuf. donc loolu xaalis bu bëree bari la aussi déglu naa sax wax loolu ne waroon nañu leeral xaalis boobu fan lay jaar est-ce dañuy dem donc pour lebe ji pour def ko ci loolu noonu walla aussi dañuy yaakaar ci li nga xam moom mooy budget réew mi mais aussi wax nañu ne 62 pour cent yi maanaam téeméer boo jël juróom benn fukk ak ñaar loolu ñu ngi koy jëlee ci budget réew mi. maanaam xaalis bi dix huit milliards yooyu nga xam ne dañ koy soxla fii ak cinq mhm. téeméer boo jël juróom benn fukk ak ñaari ñi ngi koy soxlaa ñi ngi koy jëlee si budget bi nga xam ne mooy budget réew moo xam si wàllu pétrole bi la moo xam suñu ressources minières yi la moo xam impôts yi la moo xam TVA bi ñuy dagg si nit ñi la mais en tout si réew mi lañ koy concentré muy soixante deux pour cent boobu noonu pour financer ko muy dix huit mille milliards yooyu noonu. tey vision bi c'est clair amul dara lu ñu ci wax li ñuy def mooy toog observer xool ba xam est-ce que ni ñu ko waxee noonu lañ koy defee parce que en tant que aussi ay sénégalais dañuy toog observer euh, di xool ñii fan la ñu jëmee est-ce li ñu wax donc loolu la ñuy def wala duñu ko def donc beneen bi muy ci wàllu donc capital humain capital humain dafa nekk loo xam dafa am solo da nga démb da dégg premier ministre euh, c'est parce que bërki démb la. si mhm. li nga xam moom mooy xew-xew bi amoon événement bi ak sapon yi. mu ne bu jëlee exemple si sapon mu ne amuñu benn ressource naturelle boo xamante ni mi ngi seen dëkk te pourtant tey bokk nañ ci cinq pays yi nga xamante nii ñoo. ëpp développement si adduna bi. Mhm. maanaam cinq pays yi nga xam ne bokk nañ ci dëkk yi gën a développé ëpp économique si àdduna bi. Japon te amul benn ressource naturelle mais lan la am mooy ressource humaine mooy capital humaine boobu nga xam ne yor na ko liggéeyam daf ko sukkandiku si ay doomi réewam. te tey Sénégal kenn du ne amul ressource humaine bi tey boo jëlee Sénégal soixante quinze pour cent yi ay ndaw lañ ay jeunes lañ. Mhm. yoo xamante ni nii donc moins de trente cinq pour cent la. ñooñu tey bu fekkee ressource humaine bu mat sëkk am nga ko am na dëkk yoo xam ne tey développé nañ mais dañu soxla ay ay ay ndaw parce que dëkk bi dafa dem ba ay mag rek ñoom ñoo fa nekk donc kon Sénégal bu fekkee ne dane dafa bëgg a euh, si li nga xam moom mooy ci wàllu mbay parce que Sénégal ñett ñett la ñu yàgg wax ne moom moo yor cap moom moo yor li nga xam moom mooy économie gu Sénégal. Ah. benn muy mbay mi. Mhm. ñaar muy wàllu napp gi. ñett muy wàllu sàmm gi. te tey jii nii pour man si loolu la ñu war a gën a concentré wu. pour am Sénégal bi ñu bëgg. Sénégal ku la wax ne mën na développer te développer wuñ d'abord li nga xam ne moom mooy wàllu mbay bi ñu fexe ba. sénégalais yi dootuñu rek donc to ñëw dakaar ñoom ñëpp ñu concentré wu fi donc ñii di jaay ay ndiir ñii di jaay lii dëgg la donte ne dañuy liggéey mais tey jii bu fekkee ne ñëpp dañu ñëw bëgg a concentré wu Dakar tey jii yeneen région yi dafay dafay daanu. donc agriculture. moyen bu essentiel merci merci beaucoup moom laa lay wax. parce que tey boo jëlee capitale bu mel ni Dakar. Mhm. Dakar si li muy si li muy représenté si li nga xam ne mooy yaatuwaayu Sénégal 0,27 pour cent la. Mhm. te tey jii 25 pour cent du population bi dañuy dund biir Dakar. est-ce que loo xam ne zéro virgule vingt sept pour cent la mais vingt cinq pour cent ci population bi dañu concentré wu Dakar léegi nag ñu dem ba maanaam nguur gi fi nekkoon da nga doon sentir ne est que Dakar moom moom mooy Sénégal maanaam parce que économie bi yëpp dañ koy concentré wu si Dakar te tey jii nii pour man li nga xam ne moom mooy stratégie bi gën a donc gaaw pour ñu fexe pour développer yeneen dëkk yi mais aussi pour développement Sénégal gën gaaw mooy ñu def donc li nga xam mooy décentralisation si wàllu économique. ñu fexe ba yeneen dëkk yi boo demee Sédhiou nga xam ne am na ñoom si lu ñu jëng loo xam ne si la ñu concentré ku ko bëgg da nga fay dem te tey ji dañ fay yaay di ko gis seen bopp te du soxla ñu ñëw dakaar mm-hmm. boo demee Tamba noonu boo demee Kédougou or boo demee saint boo demee feneen ak feneen mais tey jii bu ñu jëlee lépp yamale ko Dakar tey li ñu soxla duñ ko am donc kon loolu dafa am solo ñetteel bi mu ne li nga xam moom mooy wàllu justice sociale justice sociale dëkk mënul développer te amul justice sociale mooy justice boo xamante ni nii ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir dëkk bi dañ ciy gis seen bopp. Mhm. du am farfarloo du am kii moo am xaalis kii amul xaalis du am kumba mu am ndey ak kumba mu amul ndey mais ñëpp ñoo si gis seen bopp. donc ñuy xaara ni justice bu am liberté. bu am indépendance. Mhm. et que mhm. justice bi suñ koy rendre dañ ko war a naan. Euh, au nom du peuple parce que justice dañ ko war a rendre au nom du peuple au peuple mooy lan lan la peuple bi bëgg. xam nga tey jii bu ñu nee dañu bëgg justice bu libre bu indépendant au nom du peuple. du du question ko dañuy wax ne comme si dañ ko doon on a au nom du peuple léegi peuple bi moom est bëgg na kuy toog si mbedd mi kuy taxaw publiquement di saaga est ce que peuple bi bëgg na ma toog si télé parce que maa ngi tim micro micro wa euh, caméra wër ma ma tiim di saaga koo xamante ni nii jotewu ak moom dara. Ousmane ko loolu. peuple bi mm-hmm. nangu ko moo tax. donc justice rendre au nom du peuple mooy li nga xamante ni moom mooy. ay valeur ak dignité peuple bi. Mhm. justice bi ñu fexe muy dox ci tànk yooyu noonu. ci foofu Ousmane damay dellu si ginnaaw tuuti. Euh, mhm. nga nekkoon sur les participants du dialogue euh, bokkoon sur les assises et les réformes de la justice. am na mhm. ay ponk yi nga xamante ne jotoon ngeen ko élaborer foofu. yow mi tey jii xam nga la réalité parce que am na ay détention yoo xamante ne tegu na sa tegu na sa kaw. à quoi s'attendre réellement. Euh, waaw donc mooy li ma la wax parce que bi ñu demee ci dialogue bi xëy na bëri na point point yoo xamante ni nii donc ñun euh, souligné nañ ko fa donc wax ko ñi nga xam ñoom ñooy acteurs yi muy magistrats yi fa teewoon. Mm-hmm. donc pour ñu prendre ko en compte. aussi ba jébbal ko président de la république. Mm-hmm. donc li ñu xaar donc bëri na mooy ñu fexe ba donc ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci dëkk bi moo xam nga nekk homme politique moo xam nga nekk musicien moo xam nga nekk ak côté boo man di doon. Mm-hmm. nga fexe ba yow justice bi nga ciy gis sa bopp. donc muy attewu selon li nga xamante ni yow doon nga bëgg yoon doxee ko waxuñ nag ne ku nekk def li la neex wala ku nekk wax li la neex mais tey jii dañu dem ba système bi nga xam moom la ñuy defee garde à vue Sénégal parce que dégg nga ku mel ni muy nettali ab façon bi nga ne si la nekk woon garde à vue euh, muy boo demee centrale si dër bi ngay tëdd di la romb loolu ñun yàgg nañ ko wax parce que ñun loolu depuis 2018 2019 ñu ngi koy dund chaque jour bu ñu toogee si euh, ne ne système bi nga xam moom la Sénégal defee garde à vue donc c'est inhumain mën di xew tellement que dafa metti mhm. méngoowul ak li nga xam ne mooy àq ak yelleefu doomu aadama si ni si ni war a dundee méngoowul ak ak ak de l'homme mhm. euh, donc loolu dañ ko war a xoolaat mais aussi jëmmi garde à maanaam wala retour de parquet bi nga xam ne tey suñu constitution nangu ko amul benn loi du code de procédure pénale du code pénal du constitution boo xam ne euh, moom mooy wax ne donc retour de parquet nii lañ ko war a defee maanaam retour de parquet xam ne ñun wax nañ ko ci dialogue bi te président de la république nee donc dina ci jël li nga xamante ni mooy ay mesures yi war pour ñu xool nan lañ koy encadrer donc loolu lépp aussi ñun bokk na ci li nga xam ne loolu la xaar mais aussi ci li nga xam ne moom mooy wàllu lu mel ni ay division de fausses nouvelles donc lu mel ni diffamation lu mel ni injure lu mel ni nang yu demee noonu nga xamante ay offense au chef de l'État yooyu aussi dañ ko war xoolaat mooy Euh, souvent mu nekk ay articles yoo xamante ni nii dafay may procureur de la république doole boo xamante ni nii yow bu ñu la si visé benn rek donc les mandats de dépôt est obligatoire boo gisee jamonoy moo ko doon waral mooy li commencé boo jëlee suñu suñu code euh, code pénal bi li commencé article euh, wala code de mm-hmm. nii le procureur de la république visé na ko pour topp si nit les mandats de dépôt est obligatoire mu war loon mandat de dépôt systémique parce que dafa nekk ay articles yoo xam xam ne danaan la nit ki bu fekkee visé nga ko di ko toppee si lii li nga war a def mooy da nga war a tijji information judiciaire mais tey jii injure publique diffamation loo xam nit ki dafa toog si tele wax ko jërul tijji information judiciaire li nga war a def mooy nga yóbbu ko si yoon boo àggee nag ba ba mu àgg si procureur procureur moom mooy jëlee responsabilité am yóbbu ko flagrant délit

Euh, le président jot na yëkkati ay kàddu wax sur euh, l'économie euh, compétitive waaye tamit sur la création d'emplois Mhm. su ma waxee wàllum économie damay delluwaat si ginnaaw tuuti gis nañu sortie bi nga xamante ne euh, le gouvernement jot na ko def. Mhm. Euh, jiital si ki nga xamante ne moom mooy ilimaanu jëwri ni Ousmane Sonko. Mhm. ñu gis tamit le ministre de l' économie du plan et de la coopération le docteur Abdourahmane Sarr jot a def des orientations. si ñu jiitum réew tey génn nekk dans la continuté def tamit certains euh, développement ci wàll boobu. alors création d'emploi mu nekk tamit un facteur très important émigration clandestine tamit mhm. nekk mbir bi nga xamante ne ñu ngi koy waxtaanee ci bile mbir mhm. d'abord sur l'économie quels sont les yi nga xamante ne war nañ ci gën a appuye mhm. pour éviter yenn fléau yi nga xamante ne mi ngi détériorer la société sénégalaise euh, waaw donc xam nga mooy mooy li ma la wax sànq mooy donc soit napp gi mbay mi ak sàmm gi parce que loolu dafa nekk ay secteurs yoo xamante ni dafay toucher directement population bi. d'accord mooy parce que tey jii bu ñu naan secteur informel loolu dafa bokk si secteurs yi nga xam ne moom la ñuy gën a wax parce que secteurs yooyu noonu benn bu nekk bu fekkee ne état. donc euh, def na si lim si war a def encadré ko ni mu ko war a encadré bu nekk rek donc mën na yóbbu Sénégal donc fi nga xam ne fa lañ ko bëggee. Euh, heureusement donc ñi nga xam ne ñoom ñooy gouvernement bi wax nañu ba wax ay mhm. autoroute de l'eau autoroute bi dafa am solo parce que moom mooy mën a tax fépp foo xamante ni ndox moomu jaar na fa baykat yi dinañ mën a dem ñu jege ko moo xam dañuy jëmbat salaat moo xam ñiy bay ceeb merci beaucoup moo xam ñiy bay pomme terre fépp foo xam ne jaar na fa rek jàppal ne donc li ko wër euh, deux kilomètres jëm nii deux kilomètres jëm ne lépp ay tool la yoo xamante nit ñi dañuy ñëw di bay te loolu parce que mbay tamit li mu laaj mooy ndox boo xamante ni nii moom nga mën a bayee mhm. euh, sànq bi nga xamante nii waa secteur privé bi ñi ngi wax te premier ministre toog président toog mhm. euh, am na benn daam benn maire boo xam dégg naa monsieur parce que moom dane ceeb lay bay mais dane moom li ko gën a metti mooy jamono bi nga xamante ni bi mi ngi sonal nit ñi moo xam Dakar moo xam feneen donc di di di di di taa sonal ñu sonn si ndox mi jamono boobu ñoom ñi ngi soxla ndox mi te mënuñ see jot jamono boobu noonu li ñu def mooy dañu obligé donc jël ay raakool donc branché ko ci géej gi pour ndox mi dem directement ci géej gi te jamono boobu noonu tey jii waroon nañu mën a am ay matériels yoo xamante ndoxu taw boobu noonu mën nañ ko donc soxla yóbbu ko ci dëkku àll yi yóbbu ko ci ñi nga xam ne dañuy bay bu ko defee ñoom ñu mën ci am accès tey laa sànq laa dégg moom mu koy wax te loolu dafa nekk loo xam ne lu ama am solo la pour mën war nañu dox jëm si ñu bañ sukkandiku rek ne forcément si ndoxu ndoxu robinet wala ndoxu laaddi guerre bi lañ mën a wala wala forage yi ñu gas si lañ mën a bayee mais aussi ndoxu taw bi aussi war nañ ko mën a transformer ba baykat yi ñoom it donc di mën a di ko mën di jëfandikoo loolu lépp dafa nekk loo xamante ni nii pour man lu ama am solo la ci économie mais boo ñëwee ci wàllu employé tey jii ne amul benn secteur boo xam ne moo ëpp lu muy jël secteur informel. d'accord parce que secteur informel bi. Euh, mën naa ne presque man moo moo moo yor économie gu Sénégal parce que Sénégal tey jii du ñëpp ñoom ñoo jàng du ñëpp ñoom ay diplôme même ñi nga xam ne am nañ ay diplôme sax dañuy obligé dem secteur informel bi te xam nga sànq maa ngi déglu ku mel ni Bougane Gueye euh, ñi nga xam ne yéen ay mécaniciens yi yéen ay maçon yi yéen ay xaw ma menuisier bois nu mu ko waxee da leen see génne maanaam loolu ñàkk xam-xam mënu ko passé parce que buñ nee secteur informel bi rek euh, comme dinañ si ñëw après dinañ si gën a def ay leeral mais pour waxal ne la aussi dégg ne dinañu euh, former fii ak euh, fii ak cinq ans la ñu wax plus de sept cent mille euh, jeunes yoo xam ne dinañ leen former. moo xam nag si ban formation lañ mais en tout cas dinañ leen former si cinq ans yi xam ne donc moom la ñu jëm. Mm. loolu bu amee day nekk lu am am solo mais ñu bañ ko def rek. comme yi nga xam ne moom la ñu Macky Sall doon wax naan donc chaque année dinaa créer cinq cent mille emplois cinq cent mille emplois yoo xamante nii est-ce que gis état moo ko formé amul hmm. maanaam li mu waxoon yëpp ay cinq cent mille emplois par an donc ay naxa sa xàndang la yoo xamante nii kenn gis dara kenn xamul fan la jaar hmm. donc la preuve mooy que banque mondiale moom moo génn ay chiffres yoo xam depuis deux Sénégal chaque année yaa y a trois cent mille nouveaux jeunes demandeurs d' emploi yoo xamante dinañ ñëw si marché emploi bi. nga xam ne dañuy jàng ba am seen ay kayit. Mm-hmm. ñëw si marché d' emploi état li muy jël nga xam ne chaque année. weesuwul quatre vingt dix mille emplois maanaam plus de deux cent et quelques mille yëpp état du leen jël donc ñooñu ñenn yi ñoom ñooy obligé di jaar si yoonu géej gi. Mhm. ñenn ñooy obligé di jaar si désert bu Sahara ak feneen ak feneen pour dem wutu ji liggéey. quelle solution attendre de nos euh, dirigeants quand mooy mooy li ko waxee mooy def ay formation parce que tey gis nga souvent dama koy wax ma ne. Euh, Sénégal nañu xam ne population ñu sëpp ay jeunes lañu. d'accord mooy soixante quinze pour cent bi. exactement soixante quinze pour cent boobu noonu tey ñii. jàng nañ seen jàng yàqu na parce que amuñu sax euh, tey jii ku si dem am na ñoo xam ne si buñ tollee si bac si la si la seen jàng di yàqu am na ñoo xam ne université parce que amuñu moyen pour donc eggale seen jàng ñi amuñu moyen pour def formation ñii sax dangay gis ne dañuy def formation mais dañuy dem ba si digg ba donc formation bi dañuy obligé dagg ko parce que seen parents yi amuñu moyen pour mën a fayal formation boo xamante ni nii chaque weer di nga si fay deux cent mille wala trois cent mille francs te boo loolu bu fekkee am na li nga mën a def mooy teg ay ay ay ay ay ay entreprise yoo xam di lëkkaloo ko ay entreprise teg ay euh, kii yoo xamante ni nii pour wàllu formation des jeunes la formation des jeunes nag gis nga gars yi nañ ko bëgg a jàppee souvent moo tax affaire bi di compliqué mooy souvent toujours dañuy jàpp ne ñu formation bu ñu koy wax mooy ñi nga xam ne donc jàng nañu am niveau bi mais tey jii dafa am ñu nekk si dëkk bi jànguñu amuñu benn niveau mënuñu bind sax seen tur ñooñu war nga leen a mën a former si mécanicien donc si wàllu mécanique bi nga xamante ni tey euh, dafa développé euh, fépp si àdduna bi wa li nga xam ne mooy wàllu miniser li nga xam mooy wàllu donc euh, menuisier métallique bi nga xam ne dafa am dëkk yu bëree bëri lu mel ay Japon ay Corée nga xam dañ ko soxla te tey jii Sénégal waroon na si di si mën a former ay ndawam yu bëree bëri daal lépp loo xamante ni nii dafay laal si économie dëkk bi rek pour man Sénégal war na si di si mën a di former ay ndaw nga xam ne dootul nekkati ku jàngu ak ku jàngul mais ku nekk niveau boo toll dinañ la former si dara bu ko defee nga demal sa bopp mais bu fekkee ne former wuñ jeunes yi wax dëgg yàlla dañuy sonal suñu bopp xam nga tey jii boo xoolee euh, Sénégal dañu ne la chaque année maanaam chaque année chaque chaque euh, chaque année maanaam Sénégal tey jii genre entreprise maanaam chaque ndaw ndaw ñi nga xam ne dañuy jël seen xaalis di taxawal ay entreprise pour bëgg a mm-hmm. dimbali réew mi. ñu ne la heure bu ñu créer cent entreprise chaque trois ans yu nekk soixante cinq pour cent bi day daanu. maanaam bu ñu karee cent entreprises chaque jàppal na trois cent yi bu ñu dawalee trois cent si cent yooyu noonu soixante cinq pour cent bi yëpp dañu dañuy dem en faillite mu nekk une chute terrible merci beaucoup voilà léegi ñooñu noonu war a jugaat pour commencer waat léegi moo tax loolu faaw nga jàppale leen xam ne dëkk bi ndaw ñi ñoom ñoo koy defar parce que capital humain bi dafa am solo ressource humaine mooy lépp. xoolal amal ay ressources naturelles amal ressources yi gën a fort ci àdduna bi bu fekkee amoo ay ndaw yoo xam ne ñoom ñoo ko war a liggéey jàppal ne loolu du dem fenn. mais aussi ndaw ñi tamit nañu xam ne li état mënu leen a jox lépp état mënul jox ñëpp liggéey état mënul defal ñëpp formation. mais yow merci beaucoup mais yow en tant que jeune. Mhm. ban rôle nga war a jouer. ci sa développement réew. au lieu que nga toog rek naan man lan la ma sama réew defal mais aussi yow. pour posel sa bopp question man lan laay defal sama réew. c'est très important. maam toujours ngay xaar noo man lan lañ ma defal dañ ma war a defal lii mais yow posel sa bopp question ne man mii kat lan laa war a man a def pour sama réew. Mhm. lan laa war a mën a pour sama réew. tey jii nii maa ngi nii jàng naa ba pare aw ma liggéey juge naa sa daara ja juge naa université wala juge naa feneen ak feneen te est-ce que war nan laa war a mën a taxawal pour jël ay ndaw ñuy liggéey. xam boo xoolee entrepreneuriat Sénégal xam nga Séné sénégalais mooy koo xam ne wala la plupart si ndaw ñi dañuy ragal a créer dara maanaam dañuy ragal a taxawal. ñu bëri xam nga lan la ñuy xaar yow nga créer dara pour jël leen ñuy liggéey. xam nga tey jii yow nga xam ne sa xel màcc na si wàllu journalisme. Mhm. tey jii nii am nga am nga performance donc pour yow boo taxawal benn entreprise de presse wala benn groupe de presse mën nga ko yóbbu fi nga ko bëgg a yóbbu. mais toujours da ngay xaw a ragal. pour taxawal ko parce que da boo ko taxawalee xaalis bi nga si war a defaat. est-ce que boo ko di def merci beaucoup est-ce que boo ko di defee ba pare xaalis boobu di nga a ko mën a gañewaat mhm. mais euh, amul dara looy taxawal gis nga lépp looy def si àdduna mhm. jàppal ne li nga xam moom mooy échec yi nga xam ne moom nga siy def loolu moom moo lay may courage pour nga mën a continuer mais fekk yaa ngi essayé jàpp ne man lii waruma ko taxawal parce que mën naa koo taxawal mu dem fayit ma daanu ma ñàkk xaalis bi mhm. doo ko mas a taxawal moo tax sénégalais yi ñu bëri donc dañuy mën a dañuy mën a liggéey dara mais duñ bëgg a créer pour demal seen bopp mais dañuy xaar nit taxawal ko pour ñu ñëw donc demande d'emploi pour nga leen di liggéeyal très bien euh, Ousmane Sarr je pense que def un développement sur euh, les quatre axes donc euh, mu nekk tey ji euh, cheval de bataille yi nga xamante ne suñu njiitum réew mhm. moom la prôné pour l'avenir Euh, du peuple sénégalais waaye tamit suñu avenir et aussi euh, je pense que c'est des développements yi nga xamante ne euh, les différents acteurs jot nañ ci def des réactions mm-hmm. alors en 2012 le président Sall dafa amoon comme cheval de bataille reddition des comptes mm-hmm. bonne gouvernance patrie avant le parti mm-hmm. tey jii suñu xoolee les quatre axes yi nga xamante ne le président Diomaye jot na ko mettre en place daf ci yokk ay mbir muy l'engagement panafricain ñu mhm. bëri tamit dañuy bëgg a débattre ci wàllu boobu. mais mhm. dañuy gis ne que tamit euh, il y a des couacs yow si wàllu boobu tamit ban approche moom nga si. waaw xam nga xam nga l'engagement panafricain je pense que ça veut tout dire. parce que dañu dañuy gis ne souvent suñu njiitu réew yi. Mhm. Euh, tout le temps bu ñuy engagé wu si benn affaire pour def ko wala am am benn vision bi. donc toujours dañuy dem xool si si bitti maanaam si si si si lu mel ni ay France muy muy maanaam ñi nga xam ne ay étranger ñu ngi si bitti réew mais tey jii je pense que l'engagement panafricain bi dafa nekk loo xam ne lu ama am solo la mooy d'abord nga xam ne vision boo xamante nii si Afrique nga koy xool loo xamante ni nii du génn biir Afrique doo ko xalaat si bitti mais da nga koy xalaat si Afrique si ay valeurs yoo xam ne am na ko si Afrique si euh, xam-xam bi nga xamante ni am na ko. Mhm. si Afrique si matière première bi nga xamante ni am na ko mais si Afrique si li nga xam mooy ay ndaw yoo xamante ni nii am na ko. Mhm. tey jii nii pour man. bu ñu sukkandiku woon ci Afrique de ñun lépp mën nañ ko defal suñu bopp. Mhm. parce que tey ku mel ni Xaddafi bokk na si ñi nga xamante ni nii daan nañu taxawal yu mel noonu. nga xamante nii daawul soxla tubaab yi. mais tey dafay sukkandiku ci ressource naturelle am ci pétrole ci gazam pour fexe ba Afrique moom boppam. ci li nga xam moom mooy wàllu monnaie parce que je pense doon na ko taxawal. taxawaloon ay satellite yoo xamante ne ni africains yi ñoom ñoo koy moom ba nga xamante ni même tey ji suñu suñu suñu wàllu réseau yi nga xam suñu réseau mobile yi euh, nga xamante ni à l'étranger lay jóge tey jii ni Afrique war na ko mën a moomal boppam. di di di saytul boppam li nga xamante loolu lay jëfandikoo si wàllu internet mobile. si hmm. wàllu lépp loo xamante ni jumtukaay la boo xam ne africains yi dañ koy soxla euh, mais aussi tamit fexe ba boole Afrique. mooy panafricanisme boobu nga xam nit ñi dañ ko doon wax ñu fexe ba fédéré réewu Afrique yi ñu booloo nekk benn. Hmm. au lieu que ñuy xaajaloo euh, AES jaar ne donc CEDEAO jaar ne keneen ak keneen jaar ne mais ñu fexe. ba boole suñuy doole te xam ne merci beaucoup ñun ñëpp ay africain lañ ñun ñoo war a demal suñu bopp hmm. mais pari mu bañ a nekk union africain boo xamante ne ni français yi ñoom ñooy nekk si ginnaaw euh, CEDEAO boo xamante ni tubaab yi ñoom ñooy nekk si ginnaaw mais une CEDEAO boo xamante ne ni CEDEAO d'Afrique lay doon. mais au lieu mu nekk merci beaucoup mu nekk au que mu nekk CEDEAO des des chefs d'État africains yoo xam ne français yi ñoom ñoo leen di gemb mais dafay nekk ay nit yoo xam ne Afrique si boppam moom mooy taxaw jël ay responsabilités am pare pour demal boppam pare pour xam ne lépp loo xam ne dëkk da koy am pour développer am na ko si biir réewam. la preuve boo gisee boo gisee ñi nga xam ñooy la Russie donc la Chine la euh, Corée Corée du Nord ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi daw di ñëw Afrique pour wut ay partenariat parce que li nekk Afrique loolu la ñu soxla. Mhm. tey jii boo demee France ñu ne la France moom mooy deuxième pays wala troisième pays bi nga xam ne moo ëpp réserve d'or si àdduna bi troisième pays wala deux bi ëpp réserve d'or si àdduna bi te pourtant biir France amul or. fan lay jëlee or bi. Mali la koy jëlee. Sénégal euh, la koy jëlee. feneen ak feneen la koy jëlee Niger la koy jëlee. te tey dëkk bokk nañ ci dëkk yi gën a ndóol tey jii nii Mali xoolal li mu am si or tey jii boo demee courant bi day coupé presque vingt quatre heures sur vingt quatre xoolal oru Kédougou bi nga xamante ni oru Sabadola bi ñun avant ñuy judd ba léegi depuis soixante dix huit année yooyu noonu ba léegi ñu ngi koy exploité mënul jeex mhm. tey jii ñu siy génne ay ay ay ay millions de tonnes yoo xamante ni day génn day génn Sénégal di génne Afrique di mhm. dem si dëkku tubaab bi tey jii suñu bijoutier yi bu ñu bëggee jaay or dañuy obligé ñu jël avion dem bitim réew jëndi fa or donc ñëw pour jaayaat ñu ko ñun sénégalais yi te moment boobu noonu ñun Afrique am nañu suñu ay propre or yoo xam ne fi lay jugee di dem ci réew Afrique moo tax Afrique gis nga bu booloo mhm. fexe ba moom boppam si wàllu économique. Mhm. bépp dëkk boo xam dafay liggéey ak yow mu liggéey yow cinquante cinquante parce que nag gis nga muy muy gis nga dañ naan ñu bëri parce que li ñu bëggoon a imposer nee nañ ay ay panafricain lañ mais seen panafricain du loo xamante ne nii lu dëgg la si ñoom xam nga leen moo tax maanaam. Mhm. panafricain dañ koy wax mais gëmuñu ko. mooy lan la ñu bëgg a gëmloo. mooy France de gaz nañu jugee si France France dafa war a dem léegi bu ñu jugee ci France au lieu que ñu moom suñu bopp mais dañuy dem jëfandiku ak waa mais Russie France Afrique loolu moo ko indi parce que France intérêt merci beaucoup les, les mêmes intérêts la les pays n'ont pas d'amis mhm. ils ont que des intérêts intérêt la ñu am si yeneen dëkk yi loolu moo tax ñuy dem di fa di fa daw di fa jubali mhm. kon ñun dañu war a fexe ba intérêt boobu nga xam ne ñoom moo leen di indi suñu dëkk yi pour ñuy lëkkaloo ak ñun intérêt boobu ñu fexe ba xam nan lañ koy jëfandikoo intérêt boobu ñu fexe ba xam ne képp koo xam ne ñoo nga fi pour intérêt boobu noonu ñu jëflante yow si cinquante cinquante bu fekkee lu mënul ñàkk la mhm. mais tey jii nii Afrique ak li mu am yëpp am nga naaj am nga géej am nga euh, ngelaw lépp loo xamante ni dëkk daf koy soxla pour développer am nga ko mais malheureusement ba léegi dañuy sukkandiku ci ay banque mondiale sukkandiku ci FMI pour mën a euh, euh, pour mën a financer li nga xam moom mooy suñu ay projet mhm. bépp projet boo am tey jii nii dañuy xalaat ne FMI war na laa lebal temps banque mondiale war na laa lebal temps keneen ak keneen war na laa lebal temps pour yow nga mën a financer say projet te pourtant moment boobu noonu am nga sa réew loo xamante ni nii boo gëmoon sa bopp liggéey ni nga war a liggéeyee sa réew tey jii doo sukkandiku si benn réew. mais aussi dafa am loo xam ne moo ñu gën a sonal ñun africains yi. donte ne am na si àdduna mais Afrique moo ñu gën sonal muy corruption. te tey ma gis ne président de la république daf si daf si wax wax bu diis. def tamit des orientations merci euh, beaucoup jëmale ko sur la merci bonne gouvernance sur le plan financier merci beaucoup waaw daf ci wax wax bu am solo. Mhm. mu ne war na mu ne aussi dañuy war nañu renforcer waat li nga xamante ni moom mooy lutte contre la corruption. d'accord gis nga corruption fekk fexewuñu ba mu génn suñu suñu suñu gouvernement yi. Mhm. li ñu bëgg duñu ko mas a am suñu suñu suñu si àdduna bi. parce que boo xoolee dëpp dëpp yi nga xam ne dëkk yi nga xam dañu dañu dañu dellu ginnaaw yépp mhm. corruption moo leen gën a sonal. corruption dëkk yi gën a ndóol. Mhm. corruption moo leen yóbbee ndóol googu ñu nekkee. tey jii corruption si ministères yi. corruption si direction yi corruption ci biir gendarmerie biir police biir feneen ak feneen ba ci douane donc loolu te pourtant xaalis boobu nga xamante ni moom moo jaar ci wàllu corruption état bu fekkoon ne doon na ci jot ay milliers de milliards la yoo xamante ne ni mën nañ ko def ci lu bëree bëree bëri. mais malheureusement da nga yor benn bagage boo xam da nga ko war a da nga war a fay douane tey ji par exemple nga war a fay douane. Mhm. donc 500 milliards. Mhm. tey jii nga dem am foo jaar pour corruption 500 euh, milliards yi nga waroon fay nga dem joxe 100 milliards après ñu bàyyi la nga dem. te 100 milliards duñ ko dugal ci keesu état parce que corruption la seen keesu bopp lañ koy dugal. tey jii nii policier bi jàpp la war a la defal attestation parce que yoroo permis wala amoo assurance wala amoo leneen ak wala carte grise wala leneen ak leneen. mu waroon la bindal attestation nga war dem fay 12000. boo koy jox papier yi nga yëkkati 1000 francs nga jox ko ko mu bàyyi la nga dem. te pourtant douze mille waroon na dugg si keesu état bu Sénégal. Mm. ak feneen ak feneen yoo xamante ni bëri na. moo tax li euh, la lutte contre corruption boobu noonu dañ ko war a gën a renforcer gën ko dëgëral ba benn nit sax du ñeme yëkkati di corrompre morom bi waxuma laak ñu koy ñu koy ñu koy corrompre muy jël xaalis boobu noonu. très bien Ousmane Sarr mu nekkoon un résumé euh, sur euh, les quatre axes stratégiques du projet Sénégal deux mille cinquante donc mm-hmm. mu nekk des orientations yi nga xamante ne. son excellence Bassirou Diomaye Diakhar fay jot na ko def Ousmane Sarr le premier ministre Ousmane Sonko. Mhm. moom itamit dafa nekk dans la continuité et dafa wax euh, benn pàcc bu am solo. Mhm. nee na approche bi day reposer sur une transformation systémique. incluant une plus grande responsabilité de nos concitoyens et de la diaspora. Mhm. diaspora à un moment donné c'était des spectateurs mais jamono jii nii mhm. ils sont des acteurs politiques mhm. parce qu'ils sont impliqués dans le champ mhm. politique kaddu yi lan lay firndeel day firndeel na que chaque citoyen war na xam exactement régime bi yan tànk moom la ñuy joxe parce que tout le temps le président dañuy gis mu yëkkati ñett mots muy la transparence la vérité et la redevabilité. ci wàllu boobu tamit bi nga déggee premier ministre lan moo si sa approche. waaw xam nga xam nga diaspora bi dafa nekk ñoo xamante ni nii Euh, bokk nañ ñuy gën a contribuer si xaalis bi nga xamante ne nii moom mooy dugg si biir dëkk bi. parce que tey ji diaspora bi dañuy dugal chaque année de mille milliards yoo xam dañ koy dugal si réew mi. Mhm. moo parce que tey jii képp koo xam ne da nga nekk si diaspora bi moo xam nga nekk biir Afrique moo xam nga nekk si dëkk tubaab bi. Mhm. tey ji bu weer deewee boo fayee ko salaire li ngay njëkk xalaat mooy lan ngay yóbbante kër ga. moo xam sa yaay la. parce que tey jii nii merci beaucoup tey jii da tey jii nii ku nekk si diaspora bi tey boo xoolee euh, si si biir kër gi mu nekk. tey jii rakkam bu amee problème moom lay woo téléphone yaayam bu amee problème moom lay woo téléphone baayam bu amee problème moom lay woo téléphone maanaam moom mi ngi si diaspora bi di liggéey si ay conditions yu metti mais moom moo yor këru lëmm goo xam ne parce que moom moo leen di dundal. ba pare di def ay transfert yoo xam ne di jàppale ay nit yoo xam dañoo ay jafe-jafe boo leen boolewul si réew mi. parce que xamu donc ban njariñ la ñu am ci ci koom-koomu réew mi ñoo ñu dafa war a bokk si ñi nga xam ne parce que ñu doon wax sax benn benn banque boo xamante ne nii état waxoon na da koy tax muy xawma la banque de diaspora la ko tuddee. Mhm. boo xam ne seen xaalis foofu lañ koy jaarale parce parce que état dafa xam importance bi nga xamante ni ñu nekk ci jaspora bi am nañ ko ci contribution bi ñuy def. ci li nga xam ne mooy alalu réew mi tey jii nii bu ñu ne bu ñu xëyoon benn benn benn benn weer ñu ne diaspora benn xaalis dafa jógee dugg Sénégal tey dina bëri kër yoo xamante ni boobaa du ñu taal añ. parce que diaspora bi ñoom ñoo leen ñoom ñoo leen yor. donc ñooñu nag. Ah. Euh, il est temps nga xamal leen ni leen yéen da ngeen bokk ci li nga xam mooy développer dëkk bi. Mhm. tey jii nii yéen a ngi liggéey foofu yàlla dimbale leen te dina seen wërsëg parce que am-am yi ak fii du benn tey jii yéen indi leen seen ay projet moo xam da ngeen am projet mbay moo xam da ngeen am projet sàmm wala da am projet élevage lu mu di doon indi leen seen ay projet ngeen présenté ko état Sénégal ngeen teg ko ngeen financé ko pour mën a jël ay ndaw ñuy liggéey parce que te tey jii bu ma la waxee si jamono bëri ñoo xam ne ñu ngi si diaspora bi si jamono mag sall ñoo xam ne dama naan waxtaan ñoom ñu am ay projet pour bëgg ko teg si Sénégal mais malheureusement duñ ko mën a teg donc kóolute amuñu woon confiance ci nguur gi nga xam ne moom moo fi nekkoon souvent nga gis ñoo xam ne dañuy bind seen projet ba mu àgg ñu indi présenté ko état bi pour état accompagner leen mhm. mais dañuy gis ne projet boobu dañuy toog ba ci ak gis ne état mi ngi doxal projet boobu te ñoom euh, amuñ benn accord boo xam ne joxe nañ ko maanaam yow da indi sa projet pour liggéeyal sa réew nga gis ne sa réew mi ngi jëlaat projet boobu noonu ñu jox ko yeneen ñu koy doxal nga jekk-jekk yow xool boo xoolee da ngay xam ne lii sama projet la mais malheureusement léegi nag état bi nii comme dafa indi ne jub jubal jubbanti. Mm-hmm. mais aussi wax ne dafay accompagner askan bi mais aussi diaspora bi dugal leen ci li nga xam ne mooy ci wàllu koom-koom bi ni muy doxee ci wàllu économique bi mais ñooñu aussi il faut nga accompagner leen donc xool ñoom nan la ñuy fexee ba seen ay projets yi nga xam ne am nañ ko ci dëkk bi donc ñu mën ko teg pour mën a jël ay employés parce que employé maa ngi la koy wax sànq du état rek moo mën a état mënul jël dix-huit millions d'habitants yi nekk Sénégal yëpp ñu liggéey fonction publique wala mu jël leen ñu nekk ay journaliers wala nangam nangam mais sénégalais seen biir ñoom ñooy taxawalaat ay entreprise yoo xam ne seen koom-koom bopp lañ koy jëlee donc moo tax may la wàllu entrepreneuriat man dama doon ñaax ndaw ñi. Mhm. ñu gën ci sóobu. d'accord di créer bañ rek toog di xaar nit créer dara pour jël leen. mais yow lan nga mën a créer sa bopp. xam na tey jii ñi fi am ñi fi ëpp xaalis parce que nekkuñu di di fayeeku salaire par mois. Mhm. mais dañu créer seen yëfi bopp. ba di fay ay nit ay salaire mhm. te loolu dafa dafa am solo te souvent ndaw ñi duñ si bàyyi xel. moo tax wax dëgg yàlla diaspora bi moom pour man lépp loo xam ne état defal na leen ko rek donc lu mu war a def la te bu dee benn la doon def na ko def ñett parce que ñoom dañoo am importance ci li nga xam moom mooy ci dëkk bi. mu nekk kàddu yi nga xamante ne le premier ministre Ousmane Sonko yëkkati na ko mm-hmm. nee na nous avons pris le pari d'adopter un nouveau modèle de développement sur le mm-hmm. long terme reposant d'une part sur un état sta stratège. Mm qui, favorise, qui favorisera grandement euh, le développement de filières compétitives, de pôles territoire viables, mhm. avec des villes épicentres et un secteur privé national fort. Donc, mu nekk les dires euh, du Premier ministre Ousmane Sonko. Mhm. Pour ñu tëj euh, pàcc boobu. Mhm. Euh, mi ngi terminer di wax ne que la vision 2050 est l'aboutissement d'un long combat euh, qui a pris sa source il y a un peu plus de dix ans dans le refus de la male gouvernance -hmm. Sonko muy euh, ñëw tey jii nii ci pouvoir bi mhm. dafa am benn circuit boo xamante ne fa la jaar mhm. liggéey na impôt et domaine mhm. liggéey na ak état commencé di dénoncer le mal fonctionnement bi nga xamante ne euh, les anciens acteurs ñi ngi ko doon def loolu waral ñu génnee ko fa mu jël beneen yoon xeex li nga xamante ne naam moom mooy yenn jëfin yi tey am na benn projet bi nga xamante ne lancé woon nañ ko conclusion baa ngi nii ils sont au régime donc mm. ñoom xam nañu exactement la mm. réalité des choses mm. et surtout les attentes yi nga xamante ne askan wi euh, ñi leen fay xaaree euh, waaw bien sûr parce que xam nga tey jii nii wax dëgg yàlla ku mel ni Ousmane Sonko moom euh, yaakaar naa kenn du ko jàngale état wala nga koy wax ni état di doxee mm-hmm. parce que si jaar-jaaram par rapport ak fi mu jaar def na quinze ans impôt et domaine comme ni nga ko waxee léegi lan moo ko fa jëlee parce que da doon dénoncer li nga xam moom moo doon am si tax ñu dàq ko si li nga xam ne mooy fonction publique. Mhm. bi mu fa jugee mu créé parti politique am donc teg ko pendant dix ans muy opposé wu ba tey yàlla jox ko nguur gi te moom mi nga xam ne moom moo nekkoon à sax mu jul jël réew mi mais keneen ki nga xam ne woon si biir parti moom la joxoñ pour mu jël euh, donc kooku ak jaar-jaar bi mu am. Mhm. ak li mu daj ak xeex bi nga xam ne def na ko ak état bi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon pour man kenn du ko jàngal par rapport ak ni réew mi di doxee parce que bëri na loo xamante ni xam na ko si bu fekkee xamul lépp. donc kooku tey wax dëgg yàlla donc dañuy am yaakaar que ne procès bi nga xamante ni nii parce que bul fàtte ne Ousmane Sonko avant mu ñëw si procès dafa bind ay livre teg. exactement bind na livre solution. Mm-hmm. donc teg pour wax ne askan bi jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund muy si wàllu sante muy feebar faju mm-hmm. si wàllu donc li nga xam mooy xiif lekk. Mm-hmm. mar naan ak à l'eau potable parce que gis nga ñu ne la. fii ak deux mille vingt neuf dinañu fexe ba li nga xamante moom mooy accès à l'eau potable bi nga xam nekkoon na à quatre vingt deux wala quatre vingt trois pour cent dinañu dem dinañu fexe mu nekk à cent pour cent maanaam fii ak deux mille vingt neuf si projet bi li ñu wax mooy. bépp sénégalais fépp foo mën a nekk ci Sénégal muy village bu mën a nekk lu mu ruqe ruqe jàppal na di nga mën a am ndox mu sell mooy naan mu hmm. moo xam muy ndoxu robinet boo xam ne di nga ko mën a naan mu doon ndox mu sell aussi tamit ñu ne li nga xam moom mooy électrification si wàllu courant ñu gis ne ay dëkk yu bëree bëri tey ñu ngi si dëkk mais amuñu courant tey boo demee si village boo demee Bawol gii boo demee Saalum boo demee feneen ak feneen hmm. da nga gis ay dëkk yoo xam ne ay dëkk yu mag lañ ay village mais malheureusement amul courant ba hmm. léegi ñoom dañu mel ne ñu nekk jamonoy 1960 bi ñu ne léegi feeg 2029 dinañu fexe ba bépp dëkk fépp foo mën a nekk si ruq-ruqaan boo mën a nekk si si Sénégal di am courant boo xam ne courant bu doy la c'est parce que loolu dafa am solo par rapport ak donc projet bi nga xamante ñoom yàgg nañ ko wax ba ñëw ñu tëral ko mm-hmm. léegi nag euh, li des mooy ñu xool si yan anam lañ koy doxalee nan lañ koy doxalee est-ce que fi ñu nekk si wàllu endettement dañuy gën a yokk endettement bi ba yóbbu ñu si niveau boo xamante ni nii dañuy mujj di topp si ginnaaw tubaab yi di daw parce que tey jii sa nouveau de euh, endettement am na fu mu toll tubaab yi ñoom ñoo lay guider parce que tey ji FMI am na bu xamee ne sa bor toll na fii tey jii lim lay lebal moom moo lay wax ne la dugal ko ci secteur bii pour développer ko dugal ci secteur bii pour développer ko banque mondiale la même chose te tey jii maa ngi ko doon wax bu muy FMI muy amul benn dëkk boo xamante ni nii si Afrique gis nañ ñu ne ni ñuy FMI banque mondiale ñoom ñoo leen dimbalee donc ba ñu euh, développé wu amul. lu dul di la yokk ay bor duñ ko def. Mm. donc loolu nag pour man si Ousmane Sonko bi nga xam ne doon na xeex loolu xamoon ko démb ak barki démb. bokk si ñi nga xam ne daan ànd ak ñun di xeex APE bi nga xam ne deux 2016 lañ ko doon xeex. Mm-hmm. muy benn accord boo xamante ni nii. dañ Sénégal nguuru Sénégal daf ko signé woon ak ñi nga xam ne mooy Union européenne. mu nekk plus de 22 pays yoo xam ne Union européenne yoo xam ne dañuy ñëw Sénégal. donc di fi napp parce que gis nga façon napp illégale bi nga xam moom la doon nappee ci géej gi mhm. mooy au lieu ñu yor ay mbaal yi nga xam ne ay mbaalu caas la yi nga xam ne moom la suñu nappkat yi di nappee mais dañuy indi seen ay boto bu ñu ñëw parce que jën ñu dañu boole jën jën yu mag yeeg jën yu ndaw yëpp nappaale ko bu ñu demee ba si digg géej yi nga xam ne soxlawuñu ko mm. ñu sànni ko fekk na deen a yàqu na tey jii ne ñu ñëw bay concurrence ak ñun di jëlee sunguf meew di ko jëlee seen dëkk yi di indi fii si suñu réew mi di concurrence ak ñi nga xamante ne nii ay sénégalais lañ taxawal ay entreprise yoo xam dañuy liggéey si wàllu woow noonu mm-hmm. tey jii nii ki nga xam moo defar so soowu dolli ma keneen ak keneen tey jii nii lan moo leen daane parce que accord APE boobu bokk na si lii leen gën a nërmeel mhm. nga xam ne sunguf meew sax mënatuñ ko defar pour jaay ko parce que euh, ñoom tey jii mënoo ne yow da ngay defar sunguf meew boo xam ne cent pour cent donc lait de vache lay doon boo xam ne bu baax a baax a baax na euh, soo soowu nag piir la nga defar ko jaarle ko fi nga ko war a jaarle mu nekk original nga bëgg ñëw jaay ko six cent francs jamono boobu noonu pays union européenne indi fi seen sunguf meew boo xam ne meew meew la parce que sénégalais li gën a yomb la ñu xool mhm. nga ñëw di ko jaayee bu yàggee da ngay daaneel kële donc loolu noonu Ousmane Sonko doon ko xeex yàgg koo gis xam ko dund si gis li Sénégal yi di daj ci côté boobu noonu tey c'est parce que bu taxawalee projet bi parce que xam na la ban souffrance la Sénégalais yi di dundee te am nañu yaakaar que ne aussi tamit affaire bi dinañ ko doxal ni nga xam ne noonu lañ ko war a doxalee ba bépp Sénégal sénégalais boo xam ne yaa ngi biir Sénégal wala biti Sénégal nga man si gis li nga xam moom mooy sa bopp mais aussi tey wàll pétrole ak gaz Ousmane Sonko bu fàtte ne def si bind livre mhm. pour wax Sénégal seen ressource pétrole ak gaz yan dëkk ñoo am pétrole ak gaz si yan anam la ñu koy génnee contrat yi muy wax ne donc yëpp liñ si am mooy dix pour cent lañ si am mhm. <coughs> man nga jégal ah, <coughs> voilà euh, foofu rek kii wal voilà voilà donc euh, <coughs> comme ni ko Ousmane Sarr waxee ñu nekkoon ci ponk bi nga xamante ne euh, mi ngi doon wax euh, des développement yi nga xamante ne le premier ministre Ousmane Sonko moom la def wax na tamit sur richesse yi nga xamante ne naam Sénégal am nañ ko et ban manière moom lañ ko war a exploiter xam naa dañuy ñëw jàll rek ci beneen partie bi gis nañu tamit kàddu yi nga xamante ne Euh, Macky Sall ak euh, waa APR jot nañ ko def doon critiquer euh, la gestion bi nga xamante ne naam moom la le nouveau tandem Diomaye ak Sonko di doxalee actuellement réew mi mu nekk des critiques yi nga xamante ne naam bett na ñu bëri le président Sall dafa newoon ni que. Euh, bi mu bàyyiwee nguur bi du laala ni lépp luy jëm euh, sur l'actualité euh, politique sénégalais waaye gis nañ ne que dina bokk ci jongante yi nga xamante ne moom moo war a am sur les législatives donc mu nekk tamit parti bi nga xamante ne mooy doon parti politique ñu nar a waxtaanee sur les critiques du président Sall waaye tamit Barthélemy Diaz am na ay yenn kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko nee na booy dakaar booy town du def erreur ñaari yoon Ousmane. Mhm. temps bi sax xaj nañu xam naa ne que dañuy jaarani foofu rek. Mhm. dugg ci euh, wàllu politique bi. Macky Sall encore qui continue d'alimenter le débat politique ak Barthélémy Diaz bi nga xamante tamit yëkkati na ay kàddu laataa ñuy jàll rapidement sur la sortie de Bougane Gueye Dany. waaw mais xam nga man tey Macky Sall bu ñëwee di critiquer. Mhm. si lan la war a critiquer man loolu mooy sama problème <laughs> tey Macky si lan lay critiquer si lan lan lay wax. six mois après son départ. douze ans douze ans du ñaari at du ñetti at de pendant douze ans la Macky Sall jiite réew mi si liñ ko nattal si wàllu xaalis si budget bi toll na prix de cinquante et mille milliards yoo xam ne moom lañ ko jox si wàllu budget boo ko cumulé day ëpp prix de cinquante et mille milliards ñu jox ko ko pour mu defar réew mi tey Macky Sall boobu noonu moo ñu yóbbu si wàllu endettement mmh. prix de presque quinze milliards wala lu ko ëpp. tey euh, gouvernement bi dégg nga ñu génn ne am na sax xaalis boo xam ne lem nañ ko prix de mille huit cent quatre vingt douze milliards yoo xam ne. xamuñu fan lañ ko dugal. ak six cent cinq milliards yoo xam dafa disparaître carrément kenn xamul fan la jaar. d'accord après Macky boobu noonu moom mooy ñëwaat di critiquer di wax li dox ak lu doxul maanaam Macky Macky Sall après six mois bi mu génnee ci réew mi pour man waroon na sax jomba taxaw di ñu wax naan ñu lii dox na wala lii doxul. parce que tey bu dëkk bi tollee fii si wàllu économique. tey jii ñu ne économique gu Sénégal dafay nekk di ralentir. tey jii ñu ne notu senegal dafa jóge tey jii lu mel ne Assane Modis bi nga xam dafa dafa yóbbuwoon notu Sénégal si BA3 wàcce ko si B1. tey jii mu fe mu mel ni bu fekkoon na ñun ñi ngi cinquième étage actuellement ñi ngi si première. tey kan moo fa yóbbu loolu parce que à cause de Macky Sall bi fi nekkoon moom moo fi def loolu. tey jii nii ñu bëri ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan plus de Macky Sall moo leen ko teg parce que moo bëggoon a forcer benn dictature bëggoon a teg man naa tax muy éliminer ay opposants politique nekk ci ay complot yàq dëkk bi wàllu employé mu mu wàññi ko xañ xañ ndaw ñi seen liggéey tëj leen ci kaso plus deux mille mille euh, jeunes yoo xamante ne nii dañ leen a tëj ci kaso ba seen liggéey yàqu. Mm-hmm. tey jii nii ñi nga xam ne dañoo yoroon seen place manifestants yi tax ñu taal ko ay agresseurs profité ci pour pour pour pour euh, yàq seen alal. Mm-hmm. tey Macky Sall boobu noonu après six mois bi mu jugee ci bopp réew mi mooy ñëw di ñu wax nañu lii moo dox wala lii doxul pour man waroon na am kersawu sax. taxaw jàkkaarloog sénégalais yi di wax ci réew mi maanaam di wax ci Sénégal lu war a dox ak war a dox pour man waroon na am kersa boobu noonu. d' accord euh, dañ koy tënk foofu rek rapidement parce que ñu ngi may signaler ne que euh, heure bi euh, mu ngi ñuy xooj. Mhm. gis nañu tamit Barthélémy Diaz ak Bougane Gueye Dany am na mhm. sorti yi nga xamante ne jot nañ ko def Bart nee na am na ay yoo xamante ne euh, du ko répété waat. qu'est-ce que ça mais yan erreur wax. waaw yan erreur. maanaam yan erreur la dul répété waat xam nga tey man xaw man man man wax dëgg yàlla dama bëgg mu leeral mu wax ne erreur bii laa defoon. dootuma ko defaat Boy Town la de. non mais Boy Town yan erreur la dul répété waat nga dafa yomb rek nga ne wala am na erreur yoo xam ne du ko répété waat parce que man Boy Town la gis nga baat gënu fee nekk Boy Town kenn. gis tey jii bu fekkee ne li Abbas Fall di wax naan borom Dakaaru mm. loolu moo ko tiital ba tax ma naan man ba ma naan man ba non actuellement d'accord actuellement nii mën na nekk borom Dakar parce que moom mooy le maire de Dakar tey jii ni Dakar lépp lu ñu fiy taxawal moom da si am ak waram parce que moom moo jiite Dakar mooy maire bi mais tey jii pour man bu fekkee ne loolu moo tax mu naan borom Dakar donc man boy town la gis nga boy town bu dee boy town la xam nga si lan la koy wane si élection yi élection yi na fexe ba gañ a Dakar boobaa la xam ba xam Barth mooy borom Dakaru Barth booy town la wala déet parce que bul fàtte ne Barth dafa am si ay anam yu mu faloo woon. d'accord te Barth xam nga ñaata ñaata voix la jiite woon ki nga xam moom la doon xëccool élection locale yi. ba ba tax mu nekk maire Dakar. plus de cent xaw ma vingt six mille voix cent non cent quatre vingt seize mille voix presque deux cent mille voix yoo xam ne jiitoon na ko donc ñi nga xam ne ñoom doon xëccool Dakar. muy candidat benn bokk yaakaar yeeg yeneen candidat yi cent quatre leen jiite woon nga yaakaar ne Barth moom moom moo ñëw nit ñi bëgg ko Dakar bëgg ko moo tax ñu votel ko noonu déedéet parce que dafa nekkoon si benn coalition bu ñu tuddee yeewi askan bi. Mhm. coalition boobu am ko fa nekkoon ku tudd Ousmane Sonko. Mhm. te Ousmane Sonko boobu nekk koo xamante nii. si moment bi ñuy wax ni ndaw ñi li ëpp si ndaw ñi moom la ñuy jox bopp parce que si moom lañu ñu am yaakaar. d'accord parce que seen yaakaar bi ñu am yëpp si réew mi si moom la ñu ko teg. Mhm. tey jii nii Barthélémy Dias si ginnaaw kooku la doon topp. chaque jour di nekk ak moom di affiché wu ak moom ñu bokk benn mouvement Ousmane Sonko bokk si ñi ko imposé parce que parce que bul fàtte ne euh, élection deux mille vingt deux Khalifa Sall son waat na tànnoon. mais Ousmane Sonko bokk na si ñi nga xam ne ñoom ñoo imposé Khalifa Sall Barthélémy Dias. tey jii ñu indil ñu Barthélémy Dias. Mhm. mais kon Barthélemy Dias du si euh, man-manu boppam wala bëgg-bëgg bi ko nit ñi bëgg moo tax ñu fal ko Dakar mais parce que dafa am benn influence boo xam ne Ousmane Sonko amoon na ko si léegi nag élection yi yàggatul waaw moins de mois la rek mhm. le 17 novembre soreetul boobaa nag la ñuy war la ñuy xam kan mooy borom ndakaaru Bougane Gueye c'est que gis nga Bougane waaw moom dafa dafa jàpp ne dafa dafa sérieux si bëtu sénégalais yi fekk ne sénégalais yi comédien lañ ko jàppee xamate yow di nga di xool sa bopp jàpp ne wala man mii xam nga donc am naa xaalis am naa télé am naa rajo donc créé naa ay waaye donc def naa lii jàpp ne nit ñi dañ la teg fu kawe. Mhm. comprendre nga nga jékki-jékki parce que yàlla sax bi mu wax doom bi mu wax doomu aadama dane bind naa doomu aadama si anam bi gën a rafet parce que su ma radatnaahu asfala saafilin mhm. bind naa doomu aadama si anam bi nga xamante ni nii moo gën a rafet moo gën a kawe waaye doomu aadama dina wàcce boppam ba yées animaux yi loolu waxu suñ borom la. Ah. tey jii nii nit ki nit ñi mën nañ la teg fu sori. donc am benn crédibilité boo xam ne da nga koy am si bëtu nit ñi. Mhm. mais nga dem dem ba nit ñi di la xoolee comme benn comédien dootuñ la xoolee fi bi la doon xoolee actuellement Bougane foofu la toll ak sénégalais yi. mooy sénégalais yi benn comédien lañ ko jàppee boo xamante ni nii day wax nit ñi di reetaan donc nit ñi bu ñu bëggee dindi seen stress moom la ñuy dem seetaani mais moom dafa jàpp ne homme politique bu sérieux lañ ko jàppee xam nga tey li ma doon wax sànq dégg naa ko muy naan yéen maçon yi yéen mécaniciens yi ak ñan. xaw ma ministère ministère bu waay yi gars leen si projet parce que tudduñu leen est-ce que tey mën nañu taxaw lim ñëpp ñi nga xam ñoom lañu ñu war a tey ji bu nee secteur informel secteur informel ministre bu waa bi bokku si secteur informel mécanicien bi bokku si mm-hmm. mais bugaan sax xamul ne moom ndakate ñoon si secteur informel la bokk maanaam loolu laa lay wax ne la souvent dangay dangay indi ay prat ay théories yoo xamante ne nii di wax ak nit ñi pour que maanaam mën a dugg seen xel yi pour am benn euh, euh, élect élect ay électeurs yoo xam dañ leen di cibler mais malheureusement électeurs yooyu noonu ñoom dañ lay jàppee benn comédien parce que yow dañuy jàpp ne dañuy xam ne yow li ngay wax nii yëpp tegoo ko si lu dara lu dul bëri wax tey jii conférence de presse bi mu def léegi ban ban sens la am lu dul ne voilà damay def xawma opération ti bu tànk bi mu doon def ak Macky Sall fu gouvernement bi génnee midi dinaa génn midi demi tey jii da ngay dem ba yow mais lan lan ngay wax bugaan lan lay wax nit ñi di ñu wax ay chiffres yoo xam ne tey bu xëyee xëy ñu woo ko si tey jii mu dem victimiser wu. ne wala gis nga donc damaa wax en tant que ñu jàpp ma bu waan kenn du ko jàpp day dem élection. loolu force la gis nga billaahi dama leex lu leer tey jii nii bu justice su Sénégal décidé woon pour tëj Bougane avant élection yi. Mhm. man dinaa bokk si ñi nga xam dañuy dem dañuy def délégation dem si Ousmane Diagne ministre de la justice ne ko Bougane da ngeen koy bàyyi force mu dem. ka Bougane ak lu mën a def nag si réew mi laa la wax waxuma lii de dama mën a def si réew mi. xoolal même bu rayoon nit bu defoon ak lu mën a def lu garaaw garaaw bugaan dina ba jógee élection boobaa ñu koy door a topp mais fii ak élection yi bugaan amul dara lu muy def ba du dem élection actuellement dem élection force la te ñun ñoo ko koy forcé ñun sénégalais yi merci beaucoup Ousmane waaw te ñu ngi ñaan premier ministre nag ak président de la république ak ministre de la justice bugaan lépp lu mën a wax lépp lu mën a def bu ko kenn convoqué bu ko kenn jàpp nañ ko bàyyi mu dem élection ñu xam Euh, ban poids la am si Sénégal yi comme que mosul dem élection. jërëjëf jërëjëf Ousmane Sarr ñaa ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ci kàddu yu am solo yi nga xamante ne yëkkati nga ko si jotaay donc face à lii lañ leen indiloon tey euh, mu nekkoon tamit les développement yi nga xamante ne Ousmane Sarr jot na ko def après la présentation du projet Sénégal 2050 et les autres points yi nga xamante ne jot nañ ko développé ci biir jotaay laataa mhm. ñu yëkkati euh, tamit biir débat mhm. Ousmane mbégte rek laay am saa su ne di la di la di la dalal di partage plateau bi ak yow bàyyi la tamit nga tàggatoo ak suñu mbokk internet yi. waaw Babacar man it maa ngi doon am mbégte wax dëgg yàlla ak kontaan pour teew si émission bi. Euh, comme ni ñu koy defee tous les lundis non dama juum maanaam Mamour parce que xam nga xam nga Babacar donc moom dañoo yàgg <laughs> uh-huh. moo tax souvent bu muy wax rek sama xel day ñëw si moom euh, wax dëgg yàlla amoon naa mbégte lool ak kontaante comme ni ñu koy defee tous les jeudis ak lundi donc mm-hmm. di ñëw Euh, jàkkaarloog askan bi donc pour waxtaan ak ñoom si ay point yu différents yoo xam lépp rek. Mhm. ngir bëgg luy jëmal kanam réew mi ak loo xamante ni nii mooy tax sénégalais yi gis seen bopp si réew mi. Euh, donc voilà moo tax ñu koy def donc di wax ne sénégalais yi nañu gën a jàpp xam ne incha allahu lépp ay baax mais nañu góorlu fexe. teg loo xamante ni nii aussi duñu toog di xaar état mais dañu teg loo xam ne suñu ay yëfu bopp la ñoo koy moomal suñu bopp ba état bu ñëwee li man mooy mu fekk suñu si bu ñu fekk siwul tamit ñu xam ne ñun amal nañ loo xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp donc di wax rek ne ba fan yi incha allahu rabbi di la jaajëfal bu baax a baax a baax Ousmane Sarr ci kàddu yi nga xamante ne euh, yëkkati nga ko euh, comme ni mu leen ko waxee euh, vous pouvez le retrouver les lundis et les sur DKR 221 dans face à l'actu di leen jaajëfal yéen les fidèles internautes de HR 221 yi nga xamante ne yéen a ñuy bàyyi xel saa su ne si suñu plateforme digitale Omar Sylla le technicien de DKR l'homme dans l'ombre maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne yaa ngi koy def toujours nekk aussi dans la coordination euh, Fat Sow au passage qui est dans le management un réel plaisir di leen jox dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf